prison lañ ko passé <laughs> ma woo waxoon ñoom njóogu de sama délégation ñëwoon na mais maa bëggoon a ñëwal sama bopp et bi ma génnee aussi je pense que béy di wax nañ téléphone ma wax la ni bu dog bu doon sama sago rek la doon naa ñëw ndax euh, pare pare woon naa ko dama ni woon damay dem marché ba bu marché bi pare ma fanaani Thiès bon malheureusement ma fanaani commissariat central <laughs> kon mbégte rek laa am ñëw vraiment manifestation bi bi ngeen ma defee parrain pour wax leen fi ma ci tool ci sincérité j'avais même pas besoin ma ñëw soxlawuma ko parce que bi ma fi ñëwee li ma leen waxoon ci laa nekk élection ou pas gagné ou pas lépp lu ngeen xew la su ma ko yëgee à temps li ma ci man ci sama ñaq dinaa ko ci def waaw yoruñu ay millions nag yoruñu dara mais manifestation bu ngeen am ñu yëg ko à temps bu dee xam-xam bu ñu am dinañ ko ci def bu dee relation bu ñu am dinañ ko ci def lañ am ko si néew ci suñu alal muy suñu alalu bopp dinañ ko jël bokk ko ak yéen ngeen xam ni yëg nañ leen ndax bi ñu fi ñëwee aussi da ngeen ñu yëg ngeen dagg seen yitte accueillir ñu waxtaan ak ñun ci seen i jafe-jafe ah tey nag euh, ñu ngi jëm ci ay élection hmm, yeewi askan wi xam ngeen ni mu toll coalition bu mag boobu nga xam ni ay kilifa yu bare ngi ci biir euh, sëriñ Mouhamadou mustafa si bu daayira Muhtarchidine wal Muhtarchidaat mi ngi ci biir sëriñ Mansour si Jamil mi ngi ci biir Khalifa Ababacar Sall président Ousmane Sonko Malick Gakou ak ñeneen ak ñeneen euh, coalition boobu ñoo ma tabb fii ci Thiès may wut mairie de la ville de Thiès am ci yaakaar ci jot ci pour mën a liggéeyal cees pour mën a liggéeyal askan wi e, jàpp ni e, suñu ci yàlla yóbboo ba ñu jot ci fekk nañ ñu commencé collaborer waaw jàpp naa ni e, liggéey ak yéen du jafe ndax am naa yéene bi nag am naa yéene bi ci bu sincère nag bu leen jàpp ni politicien buy wut rek la <laughs> ndax sama yéene bi gën a rëy ci Thiès mooy liggéeyal Thiès yi jot maire cees ca liggéeyaluma ko moom amul sens waaw ah, yi sama yéene ci Thiès rëy na ba nga xam ni mu ëpp programme li ma yéene Thiès li ma yéene def ci dëkk bi yàlla mi ma tiim xam na ni moo ëpp programme bu ñu bind et kon bu fekkee da nga bëgg liggéeyal dëkk bi ca mu sincère ngay ndaw parce que jàpp naa ni boo élire un maire jeune il est obligé de liggéey ndax bu liggéeyul fi la carrière am di am nag parce que fii kenn dofatul nag kenn mënatul ndax kenn même ñi ñuy nax ci politique ñoom xam nañ ko naxante la rek donc mais il accepte am nañ yéen a liggéeyal cees yéen ngeen bokk ci acteurs yi ëpp solo ci dëkk bi ña am chance xamante am chance di liggéeyeen déjà di di demalante di dikkalante kon moo tax ma ne liggéey ak yéen du jafe du jafe am na tuuti lu ma xam ci seen i jafe-jafe ci seen i bëgg-bëgg euh, bi ma fi mujjee booba ngeen wax ma problème de formation capacité ci te je pense que ni béy di am na lu ñu ci lu ñu ci jokkoo woon ñoo xamante ni waxtaanoon naa ak ñoom ba ñu d'accordoon jël seen expérience seen xarañte seeni réseau seeni réseau am na lu luñ ci mënoon ba jàppoon naa ni boole woon naa leen ak ak ñoom euh, laneen li moom boo nekkoon maire sa capacité day yokk li nga xam ni jàpp naa ko mooy renforcement de capacité yi moom dafa dafa war a jëm kanam bu baax waaye dañ leen war a dimbali aussi ci matériel yi bu baax ba ngeen taxaw carrément loolu maa ngi ciy wax ay nit maa ngi leen am na benn garantie bancaire boo xam ni war nañ ko mën a defal tailleur yi nag parce que dina leen permettre ñu renforcer leen en équipement parce que coow li coow li am na niveau boo xam bu ngeen ko bëggee atteindre foog ñu accompagner leen bu baax baax a baax ci loolu jàpp naa ni Thiès am na foncier seen place yi bëri na xat na war nañ mën a def benn hangar industriel dédié au tailleur ñu jox leen ko bu doonte benn ñaari hectare la hectare la deux hectares ñu jox leen ko mais hangar industriel dédié au tailleur ngeen fa yokk seen capacité ak seen man-man loolu bokk na ci suma yéene su nekkee maire jàpp naa ni dinañ ci mën a waxtaan euh, ban place lay gën a jege fan la fan la fan la mën a nekkee en tout am naa yéene sumb ko ak yéen boobu baax fan ngeen ko bëggeet ñu mën leen ci jàppale ngeen am ko parce que jàpp naa ni euh, seen yokkute la ndax mais seen yokkute moo yokkute Cees nag parce que ay xale ngeen yor ci seen atelier yi di leen former ñoom ñi man seen liggéey génn dem former ñeneen ci formation boobu aussi dinaa ci ñëwaat parce que formation boobu dafa am solo trop trop ci man dafa ay bëri ay xale yoo xam ne amuñu bag war a defi formation am xale yoo xamante ne am na ñu bag mais dañuy dem université seen jàng yàqu ñenn ñi sax bëgguñu dem université buñ sañoon Cees gii la ñuy toog ñu mënoon a def formation bu baax mais amuñu moyen fay formation parce école de formation boo ci laal. ñi la trente mille trente cinq mille bërki démb dama dem ci benn école laaj ko lan lay def ci formation ma day def couture day def restauration hôtellerie Et je me ni mais couture bi mënu ko def sans yéen est-ce que yéen am ngeen ay école de formation yoo xamante ni yéen a ngi koy wax yoo xamante pour la formation yéen a ngi ci am nga am nga waaw xam nga loolu moo tax may maa ngi ñëw bi ma ko laajee ma ne ko tey ku bëggoon a jël 500 xale ci domaine yëpp nga assurer leen une formation mairie bu bëggoon a def subvention pour cinq 500 xale ñu ñu def formation ci domaine yëpp parce que du couture rek ko fi nekk yi domaine mu ni ma soo amee budget ñaata di ko man mu def ay calculam ni ma boo amoon 14 millions docteur ma assuré la formation cinq cent xale ci domaine bu ñu ko bëgg ñii informatique ñi communication ñi la ma ne xoolal 14 millions nga mën ci former cent doomu Thiès pendant ce temps ñi pasar pasaree alalu Thiès bi man dama jël engagement ni su ma nekkee maire dina am budget boo xamante ni pour formation la xam nga lu tax fa mu ko jële dama gis mairie dakaar chaque année day joxe ay bourse doomu dakaar gratuitement parce que dafa am ñoo xam ne mënuñu fay bëgg nañu def formation mënuñu fay yow sa école formation bi mensualité bi ñaata la 15000 la moo boobu bariwul mais am na ñoo xamante ni 30000 am na ñoom 35000 am na ñoom 60000 c'est-à-dire bourse yi ñuy joxe am na ñoo xam communication la bëgg a def am na ñoo xam peut-être couture la ñu bëgg a def mën nañ ni mën nañ jox signer benn contrat ak sa école ñu ni cinquante bourses cent bourses su ko defee xale yi bu ñu ñëwee dañuy ñëw jël. Euh, seen feuille dem inscrire li ci des yaak mairie bi la ñoom ñu def seen formation jot seen diplôme loolu vole la boo xamante ni en tout cas bu ma nekkee maire de Thiès bi mu waa ji defee engrais bi defee calcul ni ma 14 millions mën na former 500 doomu Thiès 30 millions mën a former mille doomu Thiès dama am lu ma métti trop parce ni mairie yi mën nañ lépp loolu du dëgg adin man su ma nee docteur Babacar Diop ngeen ma falee seeni i problème jeex su ma ko waxee waxuma dëgg yéen yéen ñi may déglu xam ngeen ni li muy wax du dëgg mais am na lu mairie man nag suñ wàññee sàcc alal bi wàññi pasar pasar bi jéem a déglu yitte askan wi jéem a déglu secteur yu mel ni yéen ñi jéem leen a déglu jàpp naa ni li fi nekk ku si néew ci alal buñ ko orienté di ngeen ci gis seen bopp Thiès dina ci gis seen bopp ci formation boobu am nañ ci yéene suñu jëlee maire yi yaakaar naa ni de manière plus structurée ñi fi nekk ay école yu yu valable parce que man aussi samay wax day leer aussi <laughs> Sénégal aussi dafa compliqué mais école yu valable yoo xamante am seen i kayit leer nañ def formation yu baax en tout cas dinañ leen ci dinañ ci liggéey dañ ci dimbalante la ndax si que du mën dañ leen ciy dimbali parce que ay doomu Thiès ngeen di former école yooyu suñ gënee am doole ba ñeneen di ñëw day gën a yokk koom-koomu doole dëkk dëkk bi taxawaayu dëkk bi et je pense que c'est un secteur bu ama am solo ci wàllu formation ci wàllu ay bourse ay xale yu bëgg a def formation ci amuñu ay moyens suñu yitte la et jàpp naa ni ñun ak association bi ñun ak maître yu mel ni Abdou je pense que dinañ ci mën a liggéey ci gàttal ci gàttal vraiment maa ngi leen di gërëm bu ku dem ma dem ku demul ma dem yéen ci loolu ngeen nekk <laughs> ku ñëwit ci waar wi la leen fekk Eh, am nañu ak lu mënti xew am nga bu fekkee da ngay collaborer ak nit boo sincère doo ko tënk ci ay échéance ak ñun suñu collabore ak yéen euh, sut na élection yii ñu jëm nga xam ne moo moo moo moo taxaw dadi bu ñu yàlla mayee ndam dina gën a yomb te jàpp naa ne di ngeen ci gis seen bopp parce nag euh, du leen wax lu ma gëmul ca dañu am yéene liggéeyal Thiès lu Thiès waaye teg seen bët xam lan mooy njariñu maire parce que Thiès moom jàpp naa ne ba léegi xamaguñ njariñu maire maire moom ñu ñu koy fal liñ jàpp ni mooy maire mooy sàcc suuf pasar pasare suuf pës alalu waa ak alalu waa Thiès mais maire boo xamante ni mën na xëy nekk ci yitte waa Thiès carrément pour ñu jima développer suñu dëkk am nañ yéene jooju gisuñu ku leen ci gën a placer d'abord comme collaboration parce que secteur la bu mata mata mata jàppale ndax li ngeen di def déjà ci dëkk bi kon yéene jooju daal ñu ngi koy ñu koy gën a feddali tey suñu diggante ak yéen aussi am yéene collaboration bi jiitu euh, romb élection locale yi nga xamante ni ci la ñuy jëm ba mu continuer continuer continuer ba bu ëllëgee ngeen am ay centre yu mag a mag a mag a mag a mag vraiment loolu daal lañ leen di yéene ba euh, ngeen mën a nekk euh, benn euh, plate tournante au niveau de l'Afrique de l'Ouest ndax tailleur Thiès yi li ñuy liggéey ndax am xam nañ ne am ngeen xarañte bi loolu moom mi ngi fi li di ci des rek mooy ñu dooleel leen ba ngeen nekk benn label boo xamante ni Sénégal dina ko jaay au niveau de l'Afrique ca loolu mooy suñu yéene jërë ngeen jëf